Bonjour. Bonjour. Vous avez faim Ou pas n'avez pas faim non bul wax loolu tamit nag <laughs> ah waaw wax nga dëgg ñi sant Diouf son sonnul leen. Ah, ñi ah. sant Ba ñoo sonn. xaaral ah, xoolee ne quoi. ah gis nga de l' autre côté de la cuisine <laughs> donc euh, crevette sautée tey moom la ñu proposé comme ni nga ko gisee ça donne euh, envie hein. ah kii moom bu ñu paree man maa lay yóbbu fële nga dégusté yow kese laa koy may. alors après le roi quel roi. ça n'existe pas. <laughs> Fatou Diouf madame Fatou Diouf coordonnatrice euh, du plan MENA ah dikkoon nga fi quelque temps de cela waxtaan ak ñun. Euh, ci ay wàllu euh, xale yeeg civisme éducation lépp lu ko ëmb waaye tey nag dañ fi ñëw ak beneen thème Samba Ardou Ba ma bàyyi. absolument on va parler un peu ci wàllu protection de de l' enfance protéger également ci ay maanaam ponk yu yu bëri mu ci rek wàllu migration illégale ak yeneen ak yeneen ci biir waxtaan bi alors comme on dit une coutume tey nag maa fi ñëw rek daal di fi wutu ki nga xamante moom mooy soxna Daba Soumaré mu xaw a nag wopp lool ñu koy naan rek kon euh, voilà mu mu jóg ak jàmm ak salaam ba ñëwaat ci ay liggéeyam lekk la rek sûrement man ko sûrement kon madame Fatou Diouf yéen yaay coordonnatrice plan plan MENA plan MENA bu ñu ko tëralee day wax ci wàllu euh, maanaam protéger xale yi mais ci lan waaw euh, plan de sensibilisation bu projet MENA hmm. ci wàllu protéger xale yi lay wax hmm. waaye fépp ci wàllu yee askan wi. Mm. donc yee waajur yee xale yi. Mm. Euh, wane bunt yi nga xamante ni xale yi mën nañ ci jaar ba am jàng-jàng bu normal laay njëkk a wax. Mm-hmm. Euh, wala ñu jàng métier jàng métier bu jaar yoon mm-hmm. ba mën a am liggéey ba seen xel du nekk ci tukki tukki bi nga xamante ni dañ koy def te duñ ko jaarale ci yoon mm-hmm. euh, ñu koy faral di def di ci ñàkk seen bakkan mm-hmm. bu ngeen fàttalikoo li fi amoon ci ay année 2005 ak ci kanam li ñu daan wax barsax barsax euh, loolu daal la ñuy fagaru fagaru la en fait prévention la te loolu xam nañ wàññeeku na. Mm-hmm. léegi rarement la ñuy dégg lu demee noonu mais terewul xale yi xam ne ñu ngi jaar ci beneen yoon bu dul gaal ñu ngi mm-hmm. jaar ci désert bi tamit ndax léeg-léeg dem ba Maroc jéem a traverse. donc loolu daal ci la ñuy yeete ndaxte projet bi li ko tax a jóg mooy dooleel Sénégal ci wàllu protection. defe na mineurs yi moom ku fexe ba bu ñu bu ñu tukki tukki bu jaaw ci yoon. Mhm. yaa ngi liggéey ci wàllu woowu. d'accord alors comme on dit rek pour un peu bien camper le le le débat le le décor dañu dem rek xool ak waa régie benn élément daal di ñëwaat kon ci plateau bi ngeen ko mën daal di faram-fàcce. ok euh, taxawaayam mooy euh, ni ñu ko déggee jàmm pour l'éducation et la formation. dafa bokkoon ci suñu objectif mooy jàpp ci njàng mi ndax euh, njàng état mi ngi ciy def lim man ñi fi jiitu woon ñu ngi ci def liñ man waaye en tant que un citoyen da ngaa war a ñëw yow ni nga amee sa gis-gis ak ni nga ci lu lu sa bokk yi di def ak say dëkkandoo yu réew ak sa état lu ñuy def nga indi yow benn approche pousse loolu mu gën a jëm kanam moo waraloon ñu sos kuréel gi tuddee ko jàmm parce que xam nañ lu jàmm amut it loola du mën a dem waaye it ñu ñëw nag participer à l'éducation et la formation waaye it muy doon muy servir de cas mu ñu tudde woon ko it loo xam dafay jariñ pour que ñi ci bokk ak waa réew mi man cee yokkee seen koom-koom léegi nag bi ñu ko sosee ba mu taxaw nag ci lañ def nag li ñuy wax comme tuddoon nañ dañuy intervenir ci éducation ci lañ defee benn partenariat avec lu ma ay daara ndax li waral loolu it mooy dañooy doon ay jàngalekati alxuraan gis ni ay jafe-jafe dafa bëri ci daara yi tey ragal naa li ngay demee di wax keneen mu lijjanti la da ngay tàmbali lijjanti sa bopp ndax mbir yow mi ci nekk man ngaa wane fi mu sooxee ci yow ak difficulté yi nga ci am su ko defee ki la bëgg a jàppale mu gë mu ci lay gën a mën a xam fan lay jaar. bëccëgu tey bii mi ngi jëm nag ci wàllu li ñuy wax euh, protection des enfants surtout ñi nga xam ni ñooy am at yu matul fu fukki euh, 18 ans ñi amul 18 ans ngir ñu sensibiliser leen ci wàllu ñu mën bañ a lor seen bopp ci lan di jéem a dem bitim réew te fekk amuñ ci ndigal wala jaariñ ci yoon bi war a jaar loolu waxtaan wuñ ci doon def en des enfants waaye aar xale yi ci lan ñu mën a nekk ci barab yu baax waaye it ñu man leen a taxaw ba duñ yàqal seen bopp duñ gaañ seen bopp te duñ indil ay jafe-jafe seen i parents jàng nag bu boobaa yow yaa xam ban choix nga am bu dee da ngaa bëgg a dem ci daara am na daara yoo xam ne tey condition ya tànnee école it école yaa ngi fi privé ngi fi public ngi fi nga xam ban nga cee jëm bu boobaa kon jël nga sa responsabilité ña ci école ba it ñoom it ñu doon ñoo xam ni bu dee ca daara ba ñu doon ñoo xam ne lan la tax ñu toog fay ñu di ko def mooy lan seen waajur dafa am lu ñu tële ci seen doom ndax doom dafa neex te sax ci xol bu ko nit ki téyewul ci këram ça veut dire que ni mooy dafa am lu bëgg mu dem ci moom munu ko cee def mu indi ko ci nga def ko ci. ka ci école bi noonu la mel ku ñëw am nga responsabilité boo xam ni kooku ñu la jox da war a def la le moom te defe naa kuy jàngale ku ne rek am nga intention boobu mooy lan am nga intention wu xamal nit ki ba am ndam ci moom ndax am ngi muy am ndam ci moom waxuma sax lañ la cey joxee di la ko fay ci àdduna waaye bu dee ci côté l'islam bi yàlla da la cay fay waaye bu dee ci côté adduna bi it yow yaa ya nga ciy sa njaboot te nag koo defal tiraanga bu màggee kenn ku ne say professeur ak say jàngalekat fonk nga leen te bëgg nga leen kon mooy kenn ku ne def la nga war a mooy waajur bu xasee génne doom ji kër gi yóbbu ko école ba wàccoon nag moom moo kon nañ fexe ba école ba baax ñu fay jàngale lu baax du fa def xale yi xale yi njàngum xale yi taxawal ay genre maanaam daal initiative ngir rek accompagner leen madame Fatou Diouf est-ce que yéen ci seen wàllu projet maanaam boobu noonu taxawal ngeen ay unité d'orientation scolaire wala boog a a euh, a euh, euh, clandestine. waaw ci wàllu projet MENA taxawal nañ li ñu tuddee ay unité d'orientation scolaire et professionnelle. unité yooyu tey ñi ngi nekk ci ñetti centre de sauvegarde yu DSPS muy centre de sauvegarde bu Pikine mm. Euh, femme de sauvegarde bu Cambérène ak femme de sauvegarde bu cees unité yooyu aussi ñu ngi existé IMCA ak FMQP. Hmm. Euh, projet bi day jeex sax bientôt. parce que hmm. fin juillet la ñuy pare. Hmm. incha allah bi mais n'empêche unité yooyu day continuer di exister yàlla suturaal nañu boobu nañ ko pérenniser. Euh, te unité yooyu tey xale bu fa dem muy xale bi nga xamante ni day jàng école wala day jàng métier. wala xale bi nga xamante ni xëy na ñaar yooyu def ci benn. bu demee dinañ ko jàppale. ndax bu fekkee ni xale bi jàng école la am na lu ñuy tuddee agent d' orientation scolaire kooku moo koy jàppale généralement c'est un psychologue conseiller boo xam ne waa BFPF ñoo ko fay teg hmm. euh, l' agent d' orientation professionnelle xale boo xamante ni day jàng mi ci wala mu doon jàng école ba jàng mi yàqu mu hmm. jàng mi ci moom bu fa demee dinañ ko gunge won hmm. ko yoon yi muy jaar ba mën a jàngaat métier wala bu fekkee defagul benn choix ñu métier ñu mën ko orienté Euh, kooku tamit ba léegi agent d'insertion la ndax UNIOS bi mm-hmm. yamu rek ci orientation mm-hmm. day jouer aussi rôle intermédiation mm-hmm. diggante xale yi ak entreprise yi bu ñu xoolee xale yi qualification yi ñu am xool demande yi ci entreprise yi jéem leen a lëkkaloo fexe ba link bi am ba bu ko defee xale yi man fa am ay stage yoo xam ne mën na aboutir ci loo xamante ni emploi la mais nag yamuñu tamit unité d'orientation scolaire et professionnelle ndaxte dañuy xool xam ne aussi wàllu auto emploi mm-hmm. dafa nekk loo xamante nii il faut ñu jàppale ci xale yi ndax xam nañu li nekk ci ay entreprise ci Sénégal mënul jox xale yëpp liggéey mm-hmm. ñëpp mënuñu ñëw am emploi salarié donc ñu ubbi li ñuy wax unité des ressources pour l'auto emploi ñu ubbi ko AMEJ euh, mm-hmm. AMEJ pour ñu ñuy déglu te xamuñu ko mi ngi nekk avenue ba ci wetu Saveur d'Avis donc unité boobu tey xale boo xamante ni dafa bëgg a taxawal entreprise wala taxawal na ko ba pare mais bëgg na ko koy gunge pour mu yokk financement ah mën na fekkee ku xam ne tamit la bëgg na taxawal entreprise mais amul sax idée de projet. Mhm. ma jël exemple parce que ñu ngi joxee léegi benn élément boo xam ne ci daara yi la. Mhm. Euh, léeg-léeg euh, xëy na moom euh, daara yi fa am na yoo xamante ni léegi mën nañ leen tuddi entre guillemets daara pas entre guillemets sax mais parce que mi ngi commencé am ay daara moderne mais am na daara yoo xam ne xale yi dañ ciy jàng école. Mhm. ba wàcc léeg-léeg du ñu mën dara ci métier. léeg-léeg bu wàcc am fukki at ak ba xam fu muy aw léeg-léeg ba mag li mu mën a rek mooy yëngu rek ci bari ci marchand ambulant yi ay xale yoo xamante ne lañu dañuy jaar ci daara yi wàcc alxuraan te amuñu métier. Mm-hmm. ñooñu tey li ñuy jublu comme ni ma ko waxee lu mel ni jaay rek lay doon mais dañuy soxla financement. Mm-hmm. te léeg-léeg ñooñu binduñu bindal seen bopp projet bu ñu bëggoon bind projet di fay dinañ fay vingt cinq mille wala lu ko ëpp.